monsieur le ministre Farba Senghor ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax am mbégte nag waaw depuis oxygène sànq maa ngi koy wax euh, ñu ma invité woon la fa en tant que ministre guddi yi nga bàyyi sa lépp ñëw samaa m'a beaucoup marqué mais aussi it euh, ba may nekk réew mi fii tamit Taku Show dajanan fi lu bari tey jii muy gulet nga ñëw ci émission bi ci solution info TV ak Walf TV euh, mu doon sunu mbégte mu rëy yow lu ñu sumb rek yaa ngi ci. kon c'est un plaisir tey ji nga ñëw teew ci sunu kanam néew nga sànq nag léegi dañuy soobu ci waxtaan wi waxtaan wi nag bi ci jiitu mooy li jëm ci dogalu démb bi ñeel Ousmane Sonko euh, juróom-benn weer ak ñaar téeméeri millions yoo xam ne teg nañ ko ko léegi nag ak xiinu mi ni am ci éligibilité am am ñu ne ci wàlluk yoon bu ëppul juróom-benn weer te nekkul ferme moom ba léegi mën na wéy di doon candidat mën na dem déposer sa candidature ñu bàyyi ko conseil constitutionnel am na ñu ne dogal bii ñu jël yóbbu woon ko ci appel lañ ca bëggoon am nañ ko mooy teemu bokk yow boo doon def commentaire ci boobu la dogal ban lay doon. waaw commentaire bi mooy si njëkk def mooy euh, ndam lu rëy la république réew mi am nañu ko parce que amul kenn koo xam ne. yaa ngi nekk tiim loi bi. Mhm. képp koo xam ne yaakaar nañ ne yow da nga jalgati yoon. dañ la war a woo ci yoon nga wuy ci yoon nga ñëw ñu àtte la soo amee dëgg ñu jox la ko su fekkee ne amuloo dëgg ñu ne la yow amuloo amuloo dëgg mm-hmm. li nga xam ne moo xewi démb itam mënutoon a ñàkk demee nii ndax dem na li ñu tuddee première instance mm-hmm. mu dem donc tribunal régional de Dakar bañ koy àttee kenn ku nekk xam na ne bugguloon a teew ak xam ngeen li ci xew yu yëpp mm-hmm. ñu def ko ñaari weer ak sursis yoo xam ne du ko tëdd ak ñaari téeméeri million te loi bi dafa wax ne képp koo xam ne da nga am ndomb tànku ministre su fekkee ne yow da nga jàppante ak moom ci lu demee nii comme diffama diffamation waruñu laa tëj lu mat ñeenti weer ñu moo xam ñeenti weer ferme la lu ko manqué moo xam ñeenti weer yoo xam ne euh, sursis la donc Ousmane Sonko dafa waroon a ñëw défendre ñëwul défendre donc lii mooy le minimum bi nga xam ne moom lañ ko mënoon teg moo tax ñu yokk li nga xam ne tegoon nañ ko ndax soo ko seetloo euh, procureur euh, dafa def appel te appel bi yoon da ko may ndax dafa estimer li ñu ko tëj méngoowul ak li nga xam ne moom la yoon moom la code pénal wax léegi nag yoon àtte dafa am. ñetti palier ci Sénégal benn bu njëkk bi mu la tuddee première in instance nga ñëw ñu laaj la nu mu demee ñu àtte la su fekkee ne àtte bi neex na la nga bàyyi liñ la liñ dogal su la neexul yow mi nga xam ne yow ci yow la jublu comme Ousmane Sonko am na droit appel Ousmane Sonko nag waxu ko kenn waaye def na appel le vingt-huit parce que def naa appel bi xam na ne su ko waxoon peut am na lu muy wàññi ci moom ci popularité procureur de la bi nga xam ne tam moom moo fa toogal société bi moom moo fa toogal yoon estimé li liñ ko tëj waruñu ko ko tëj def na appel kooku jox nañu ko yokkal nañ ko la mu laajoon rétablir nañ yoon beneen bi Mame Mbaye mi nga xam ne moom moom lañ moom mooy li ñuy wax victime moom moom ki nga xam ne moom dafa yaakaar ne moom la ñu tooñ mhm. moom la ñu laajoon moom lañ ko delloo ndax ne nañ ko lii xam naa ne doy na sëkk yow ci li nga waxoon waaye yokk nañu nag infraction bi parce que boole nañ ci injure publique muy ay saaga léegi nag. li des saaga fan nga déggee Sonko saaga foofu la laaj boobu. non xam nga ci digganteem ak Mame Mbaye wax ma rek foo mos a gis. en image ou bien en écriture que. ñu ne Ousmane Sonko fii la saaga Mame Mbaye. waaw si ñëw troisième instance. non non non balaa ñëw rek maa ngi ñëw rek troisième bi mooy. Hmm. nga def recours comme li fi ñu toll tey. Hmm. cour d'appel joxe na. Hmm. su fekkee ne Ousmane Sonko estimé na ne. moom li ñu ko tëj moom alors neexu ko mën na def li ñu tuddee recours mu dem li ñu tuddee cassation mhm. benn cour boo xam ne mu nga nekk fële ci kaw mhm. ci ci cour suprême mhm. mais cassation du koo xam ne da ngay àttewaat fee yi jëf yi cassation day day seet ndax moom bi ñu koy àttee ndax rëqaluñu yoon ndax jaar nañ yoon ndax àtt nañ ko ci yoon kon loolu moo moo gres fii mu toll nag mën nañu jàpp ne éligibilité am fi mu toll dafay lang ndax su fekkee ne dem na cassation moom su su su suñ rejeté demande bu muy def moom du mën a bokk ci ma ne ci benn ma ne ci benn ci benn wate mhm. loolu mooy jàngat bi nga xam ne am naa ko ci beneen jàngat ma ci am désobéissance civile su fekkoon ne moom ak état ñoo jàppante woon mën na ne ah man kat état laa jàppanteel ndax problème bi nga xam ne dafa am du problème mu état comme Khalifa Sall ñu ne dafa détourné wala comme Karim Wade ñu dafa def enrichissement illicite mm-hmm. mais lii dañ ne moom la ak ay nit benn bi jàll nii moom ak mambay ñaa la mm-hmm. beneen bi nga xam ne muy ñëw moo nag moo Adji saar la loolu soo defee désobéissance physique sa bopp nga yàqal mi ngi mel ni yow dangaa jam sa bopp ndax képp ku ñu tuumaal tuuma ci àdduna lañ ko fekk ba àdduna sosoo ba léegi dañuy tuumaal képp ku ñu tuumaal da nga war a din tuuma tuumal dafa am fu ñu koy dindee kenn du ko dindee ci télévision kenn du ko dindee ci mbedd mi kaay leen xeexal ma kenn ci àtt lañ koy dindee yonent yàlla yusufa bi ñu ko tuumaalee. waaw léegi balaa ngay dikk ci waare bi. léegi ñu ñëw ci relance ma la jox avant may jox saa xam nga boo gisee ma déglu la maanaam si sa biir wax fa ma doon xaar fa nga egg danga nga ne tooñul askan wi tooñul état Mame Mbaye Niang la joteel. loolu tax ñu bëri di poser question ñu ne lu ci yoonu procureur léegi nag ci dossier boo xam ne en diffamation la entre deux individus yoo xam ne tey ji bu doon mën ak yow mun na am du jël allure bi mu jël dañuy dem rek euh, devant le tribunal on gère mun na am sax yow comme sama xarit nga nga ni ma Omar baal naa la quoi du ma la toppee dara parce que diffamation lu ci ëpp noonu la nga koy gérer mais pourquoi moom envergure bi bañ ci tudd injure publique di ci tudd faux et usage de faux di n'importe quoi yoo xam ne tey ji da nga naan mais lan lañ ci jublu quoi. xam nga tax. Ah. làmb day am arbitre. su fekkoon ne ñaari mbër yi rek ñoo ñëw. li mais mais fii le juge est parti parce que le procureur mu porte plainte contre Mame Mbaye Niang mais dafa porte plainte contre Sonko kon moom am na fu mu fare am na fu mu féete. porte plainte contre Sonko. non comment appel bi la la appel bi nu mu tudd xam nga moom arbitre même première plainte appel bi nu mu tudd. Ah, ah, xam no appel bi même même bi ñuy dem première instance le procureur était dedans mi ngi woon ci biir. non xam nga procureur bi moo la fa représenté bi. Mhm. lu ne man maa représenté société sénégalaise maa représenté loi bi maa représenté état bi donc su gisee ne yow dañ laa waroon a minimum loi bi dafa ne code pénal ne quatre mois la parce que ki nga jàxante ministre la moom dafa ne rëq-rëq am na foofu moom moo tax mu def appel ne kon jaaraleel mbir yi mbir ci yoon moom loolu def donc moom kooku jëmale ko ci Sonko. non ci Sonko la ko def parce que l'appel non parce que Sonko la Sonko Sonko la gaañ. xam nga su fekkoo da ngaa a jéggi dem wal fajiri côté bële. Hmm. ñu baaree yoon wi ah, police nekk fa ak gendarmerie mën nga ne police kat ak gendarmerie mën nañ ko def mais defuñu la ko parce que dañoo war a baare yoon wi ñu baare yoon wi mhm. kon soo ñëwee yoon bëgg a jàll yow doo mën a jàll mhm. voilà ce qui s'est passé mais mbir mi jëmul ci Sonko ci yoon la rétablir mhm. parce que su fekkoon ne yoon amul ku koy rétablir fekk amul arbitre boo xam ne ku bëgg a jàdd mu ne la jàdd nga ku bëgg a bëri simple nga bëgg a dóor mu ne la amul dóor mais loolu moom moom moo waral mbir. convaincre wu ma de ça. waaw man mii Farba convaincre wu ma. Mhm. parce que <laughs> li tax convaincre euh, ci point bi nga xamante ni moom kii defe naa ni liñ la laaj. Euh, tontu bi euh, dese naa lool dañ lay xiini xaana gi nga xamante ni bi am na maanaam ci Ousmane Sonko ba fi mu toll nii. Euh, même bu fekkante ki li am na ñoo xam ne ñu ngi wax naan 6 mois yi nga xamante ni bi moom lañ loolu dafa am yeneen fee yoo xamante ni bi moom la ñu kii mais fi mu toll nii euh, ci 6 mois yi am na ñoo xam ne nee nañ euh, ba léegi mën naa bokk ci ay élection loolu su élection amoon tey hmm. mën naa dem poser candidature mën naa bokk waaye su fekkee ne recours bi ci diggante bi hmm. ak élection yi ñu mu koy valider dañu dem recours bi dafa génn ñu xool cour de cassation suñ ko daanee cour de cassation dootu mën a bokk. am na ñu bëri ñoo xam ne mais yi lu ñu wax dañ ne plus de six mois. moo tax ma ne la foofu am lëndëm. non trois mois rek la trois mois rek la loi Sénégal. Ah. code pénal Sénégal dafa ne ñetti weer. Hmm. suñ la ci tëjee. ferme yow muy ferme wala wala muy. non ferme ferme non il faut man man muy ñëw ferme laa d'un côté. parce que damaa waat parce que man dégg naa avocat. damaa rek. kii man juriste laa da ko def parce que damaa waat. Ah, loo waat damaa waat tribunal. Hmm. prêter li wax prêter sa. Ablaye Wade laa wax. loolu maa non attends man maa ngi waat. waaw le 12 avril. waaw 1980. waaw soo demee tribinalu Ndakaaru soo ko seetee. waaw da nga fa fekk le 12 avril 1980. waaw Farba Senghor waat serment en tant que inspecteur. bu contrôle économique c'est dans l'application du code pénal économique mhm. damaa waat man dama man defar li ñu wax projet ba mën naa jàpp nit mën naa defar billet d'écrou mën naa koo tëj ba pare door a dem yëgal ko juge bi damaa waat donc xam naa droit pénal moom am na am naa ci ay base yu solide léegi am na lu bari lu soppeeku de waaw d'accord mais surtout lii nga xamante ni bii moom la ñuy wax nii jamono jooju lii ñuy wax nii euh, nekku fi woon léegi dañoo dab mais loi bi. waaw loi bi moom soo ko ubbee yow sax war nga xam li ci loi bi. fii mu toll nii. Hmm. ñetti weer yi moom comme lonk nañ ko ko. mënatu la. non six mois lañ ko lonk sax ëpp na ñetti waaw dama su eggee ñetti weer rek. su eggee ñetti ak sursis ou non. wala ferme. Uh-huh. yow su boobaa su fekkee dem nañ ba mu jeex dafa def benn parce que ñetti yoon ñetti étape la ñaari jàll na benn bi jàll mooy ñu seen ndax bi ñu koy def def nañ ko ci yoon wala déet. Hmm. su ñu fa demee nag fii ak élection yi ñu dem. cour cassation mooy moo mooy cour suprême daal di ne Sonko yow mii li li ñu tëjee. ci yoon kon ñi nga xamante ne bi nee nañ actuellement mbir mi amut lenn loo xamante ne bi def na ko ci kiyam lool ñooñ loo leen di tontu ñooñu kon dañoo xamut mbir yi. xamul waaw nga ne ñuy wax la. ñoom nguuram bu bëgg yooyu. waaw ay constitutionnalistes xam nga ñooñu. waaw waaw seen xol la ñuy la ñuy doxee. xol comme yow rek. waaw wala boog nit comprend comprendre. est-ce que yow it doxee woo sa xol. non dafa nànk rek soit. Hmm. soit nguuda soit nguuda xolam lay doxee. nguuda kii la de. waaw xam juriste la xam naa ko. dama ma ne ma yegg. ci lii ñuy wax may ma rek may ma may ma rek may ma rek. Hmm. loi bi mooy code pénal xam nga ko nguuda. waaw la demee mu wax lu ko neex wala nit ñi comprendre luñ li ñu wax man dama yaakaar ne moom da dafa wax ne fi mu toll nii ba léegi mën na man na bokk hmm. waaye bés bu ñu demee cour suprême ba nga xam ne cour suprême condamne na ko définitivement. su boobaa mënut a bokk yow dégg nga kii wax na ko Cissé. waaye léegi bu demul ko Cour suprême nag fi mu toll nii mu yem fii laa moom mu bañ a def dem fenn. mais mënut a moom moom su fekkee ne demul. mu yem fii perte na. ah nu muy perte parce que laa gars yi nee nañ. Ah, non ah, ah, euh, te li nga xam ne mooy ñi jàngul waay. parce que Farba mbir mi man ak yow sorewuñ ñoo ci yem. ci mbir mi nga xam ne mooy wàllu yoon. man na parce que maîtrise parce que duñu jugé waaw du duñu kii maîtriser wuñ ko. léegi bu ñu déggee boroom xam-xam wax lu waroog lii nga xam ne moom ngay wax yow li ngay wax yow. li may wax ñooñu man borom xam-xam man code pénal man man ci xam-xam laa ko teg. non non toogee xoolal suñ toogee juróom benn fan. xam nga wuy ma. Hmm. ma may ma touriste suñ toogee xam nga tey la lan tey la mardi. mardi hmm. mercredi jeudi vendredi. Hmm. tëbal samedi ak dimanche lundi muy juróomi fan. mardi muy juróom benn fan suñ demee ba àllarba. nga xam ne moom demul. mu mu def recours. xamal ne dootu bokk ci benn élection fii ak juróomi at yi ñëw. Mm. man maa la wax loolu. mais yow est-ce que waroon am kersa ci booy wax loolu. parce que yow histoire démocratie Sénégal yow yow Ablaye Wade da ngeen ci joué lu bari parce que nekk ci opposition ba ni Ablaye Wade jëlee nguur gi mosuñu gis mu téye ab candidat ñu dem ba toll en deux mille vingt trois Sénégal di toll ci fi naan gàllankoor na nit mi dem élection parce que procès en diffamation ci lañ ko daaneel est-ce que loolu ci xarkanu démocratie bu Sénégal est-ce que waroo leen koon ñaawlu am ci kersa ci delloo ginnaaw. ci man damaa fenoon. c'est-à-dire li ma leen di wax nii suba ngeen génn wala ñu dem ba juróom-ñetti fan li ma leen wax yëpp du dëgg suba su ma leen su ma ko dégluwaatee wala su ngeen ma gisee su boobaa man dinaa am gàcce. mais tontu ma mais mais wax loo xam ne loi bi boo ko wax mais mënu ci am. gàcce même su mais fi Macky Sall yóbbu Sénégal ci article vingt neuf trente trente et un ci di gàllankoor ay candidats est-ce que démocratie Sénégal waroon na egg ci niveau bi attends ataa xam nga. Hmm. Sonko jóg kenn jógul pour gàllankoor ko ba muy bañ ko ubbilee rajo yeeg yi mu wax ci télévision yi wax la Mame Mbaye Niang lañ ko wax bañ ko waree àtte àtte bu njëkk première instance man maa ko dégg man suur ko hmm. mu ne maa ngi nii bu leen nii toog leen yéen maa ngi ay preuve su ma demee damay yóbbu ay preuve su boobu ay preuve ñu bàyyi ko mais pourquoi yóbbu preuve moo toog bu indi foofu daanee la foofu la daanu bi di gën a méttee sax saa waay dooful nag de te inspecteur des impôts la gënoo ko nekk juriste jàng na droit ma nit lu muy dafa teeyul comme Ablaye Wade ni mu teey woon. Ablaye Wade dafa non attends Ablaye Wade da daan moytu. Ablaye teeyul woon de dafa fekkoon garmi bu mel ne Abdou Diouf rek. loolu rek ab temps Ablaye Wade moo gën a metti xam nga tax moo gën a metti parce que boo luwaay yi nit ñi xamuñu lan mooy luwaay Ablaye moo doon wax ni nit ñi jëm leen ngeen xeex yi pour nga xam leen pour ngeen jël seen doom pour ngeen jël seen seen droit mais mais Sonko Sonko dafay dafa tëñëx tëñëx yi. tëñëx tëñëx non dafa tëñëx tëñëx yi hmm. parce que Ablaye Wade. daawul nangu mukk ñu tëj ko daawul nangu mukk wax lu ñu ko tëj. Abdoulaye Wade mu sa saaga ko tëjati ko. non waaye Abdoulaye Wade suñ koy du ñu ko tëjee loo xam ne. alors du ci mën a du ci mën a génn Abdoulaye mosoo ko dégg mu saaga. un magistrat parce que article vingt neuf mu trente et un amul woon Abdoulaye Wade. ko code électoral boobu kenn changé wu ko Abdoulaye mosoo Abdoulaye moo fi indi code bi. ma ne déedéet. kan Abdoulaye gàllankooru benn candidat. code bees bi déedéet. kenn gàllankooru leen. yow beneen gàllankoor sama waay code bii du ci Ablaye Wade Ablaye Wade dafa nekkoon ci yooyu benn imam sa imaamu koñ yàlla dama yàlla baal ba ñu exemple rek nga jël benn imam wala benn sëriñ wala beneen nga fekk ko si lieu boo xam ne waru faa woon toog te moo lay jiite ah mu dugg fa rek génnaat. Hmm. lan lay wax ni moom. dama ne. lan nga ko laaj. dama de li may tontu moom laa bëgg a ko li ma li ma laaj amul solo li ma tontu tey moo am solo. Ah, dama ne. Ah. soo gisee koo xam ne dafa nekk sëriñ wala imaam walla nangam am foo xam ne waru faa dugg mu dugg fa duggaat fa wala mu dugg fa nga gis ko mu dugg fa génne defuma dara moo toog boppam. imaam ah, fan la war a dugg ak fu mu war a dugg may ma imaam fan la war a dugg ak fu mu a dugg. xaw ma ko. Ah, ah, am na fu mën a dugg. comme fan par exemple. mais Sonko du Sonko du imaam de. Sonko du imaam non moom li mu wax nii c'est que euh, Farba damaa bëgg nga continuer sa imaam léegi wax ma inter wax ma la fan lañ interdit imaam. yow ki sa bopp laa laa wax yow saa Ndiogou. waaw su amoon benn koñ benn benn néeg benn kër boo xam ne fii. waaw ah. ñëpp wóor na ne ñi nekk. dañuy ah. def loo xam ne du yoon. waaw ah, dañuy def loo xam ne du yoon comme lu mel yoon rek mën nañu jaay drogue mën nañu nekk ñoo xam dañuy euh, hmm. def ay saay-saay mu def leneen. nga def fa dugg di génn. waaw soo fa amee xarit. defoo fa dara. waaw même soo fa dara lu ñu la tuumaal yow la. Ah. donc Abdoulaye dafa doon wax ne koo xam ne da ngay wuti réew da ngay moytu loo xam ne ëllëg daf lay taxal. daf lay jàkkal mu ne deuxièmement da ngay moytu aussi ñi nga xam ne ëllëg ñoo leen di ñoo leen di àtte nga di leen saaga parce que magistrat bi soo ci saagaa kenn mu gis boppam su ma saaga woon tey sa collaborateur yi saa kii wala kii tey da nga gis sa bopp ëllëg sa xaj nag yow doo ma invité. non même soo même soo jubóo wut ak ñi kenn. kon du professionnel kon du professionnel. donc donc Sonko def na erreur boo xam ne Abdoulaye mosu koo def. taxaw di saaga procureur taxaw di saaga juge naan ñii Macky lañ fi nekkal. ak ah, def na beneen ah, erreur de Abdoulaye Abdoulaye daawul wax ne déglu ma xam nga boo nee saaga day mel ni daf leen saaga mais Abdoulaye daan na wax ne daan na dal ci kaw magistrat daan daw ci kaw ñi nga xam ne ñooy juge yi. da yàgg na ko dal ci jamono yi dal na ci kaw takk der yi Ablaye lépp def na ko Ablaye wax ne ñi nga xam ne ñoo def nangam lay wax waaw mais mais kii tamit loolu lay wax mais loo jël waaw nga jaar ci général benn général waaw wala ay généro waaw wala ñu bokk ci armée bi wala un procureur wala un juge yow nga ne réew ngay wut nga ne da koy wut ci yoon ndax eh, ndax réew mi nga bëgg a wut dangaa war a jaar am foo war a jaar wut ko nga wax leen wax bu ñaaw ëllëg même soo gañee woon ëllëg est-ce que yow da nga mën a jàkkaarloo ak ñoom. c'est-à-dire que Abdoulaye neen da ngay moytu ñooñu Abdoulaye da ngay di moytu ñi nga xam ne ñoom ñoo ñoom ñoo ànd ak Abdou Diouf Abdoulaye da daan xeex ak du Diouf ëllëg mu woo benn ministre benn ministre Abdou Diouf. waaye léegi c'est que yow li ngay wax ni Abdoulaye Wade euh, Abdoulaye Wade affaire maître Seye amul amu ci woon problème. amu ci woon problème. voilà ba mu ci amee problème am na ñoo xam ne dañoo nekk nag Macky Sall sax dañ koo jàpp eh, dañ ko dañ koo jàppale. Ah, parce que dañ jàpp ne. non boobu nu mu nekkee Macky Sall. non lay expliquer rek. Euh, dama ne ah, affaire euh, fi la ñu fekk. waaw fi la fekk. waaw affaire mairie sëy dañoo jiiñ Abdoulaye Wade. waaw dañoo jiiñ aussi attends dañoo jiiñ aussi ñoo xam ne dañoo àndoon hmm. ak ak ak Kële. ak euh, ak Abdou Diouf waaw te Abdoulaye Wade dafa fexe woon ba am ñoo xam ne ci Abdou Diouf Mm. su fekkee ne coow am na dañuy waa Abdou Diouf waaye bul topp Ablaye Wade waaye mi bu ko topp ay ñoom euh, euh, fafaamara ay ñoom Cissé Cissé Dia ak ñeneen mais cest ko yow du yow du yow su ma doon xeex ak yow fii. Mm. fexe ba ñii nga xam ne ñoo toog di ànd ak yow yëpp nekk sama ay noon ma di leen saaga benn par benn. Mm. te ñoom ñoo yore lenge yi yow su ëllëgee man fan laa mën a jàpp. d'accord donc erreur bi mu def mooy loolu. mooy dafa waroon a attaquer yem ci Macky attaquer Macky. bàyyi généraux yi. bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy juge yi. Mm. bàyyi les procureurs farba politique yu njëkkee ngay wax Euh, man man man deux questions rek parce que li des ci temps bi bareetul euh, Sonko dañ dégg mu ne désobé euh, désobéissance désobéissance civique. moom moom lay moom waaw waaw waaw. turuwee ni mel mais boo boo dalee wax ko. dafa <laughs> boo dalee rek wax ko ay ca mu mu wootee désobéissance. Euh, désobéissance voilà foog nga foog nga dal tuuti pour mën ko wax civique mu woote ko lan lan la lan la mën a jural ki nga xamante ni président président la bëgg nekk ëllëg ki nga xamante ni aussi mi ngi ci langue politique yi loolu benn la ñaar euh, Barthélémy Diaz démb télé boo jàpp presque moom ngay gis bi 21 heures passé tuuti euh, mu mel ni defe naa ni war nga ko xool seetaan nga ko parce que dalay intéressé tey jii boo ñu doon résumé wala nga jàngat ci li Barthélémy def ci sorteem boobu wala li mu wax lan nga ci jàpp yow. benn bu njëkk mooy désobéissance civile boobu mu wax noonu xam nga projet bu njëkk bii pa ñaari projet la am bu ma ma boobu su la neexee nga dem. su la neexee nga bañ nga bañ a dem parce que délit la mais procès bi nga xam ne mooy ñëw mooy ba Adji Sarr bi war a am bi war a am euh, lundi bii ñëw boobu crime la c'est-à-dire crime yoon dafa ne yow su fekkee ne yow dañ la accusé dañ la accusé ne yow mii yaa def lii da ngaa war suñ nee suba la nga ñëw nga présenté wu ci greffe bi cest ci greffier ba. nga ñëw ne ko maa ngi nii sama kàddaante gi mu xool ne yaa ngi nii mu xam ne yaa ngi ci dëkk bi mu xam ne yow am nga intention ñëw mu leen demal ñibbi sa kër ba suba nga ñëwaat mais su fekkee ne moom par exemple moom moom ñëwul fekkee ne ñëwul léegi euh, juge bi yoon da ko ne da ngay dem nga def ko prise de corps nga jàpp ko nga indi ko nga dugal ko ci nga tëj ko pour moom mu ñëw fekkee si ko beneen bi dafa ne désobéissance civile tax wax ci rajo bi ne man man duma dem ci ñaari projet yi dem mën nañ waxoon ne wax la mais comme demul ci projet bu njëkk bi procureur mën na jàpp ne comme demul ci bu njëkk bi kon du ñëw ci bi nga xam ne mooy ñëw te dafa waxaatoon beneen déclaration mu ne man wax na ko bii sax mu ne man maa ngi sama terminus mu waxaat daal ne man def naa sama testament mooy kon damay génn àdduna bind mën naa génn àdduna bind naa donc su fekkee ne juge bi tey dafa boolante li mu menacé ne mi ngi ci fin de euh, terminus ne def na testament am ba pare ne ñëwul ci bii kon dafa war a gaaw ci yoon ci yoon li li ko yoon wax procureur mën na dem dem d'office du xaar euh, kii du xaar euh, vingt quatre heures avant mu jël ko dem téye ko d'abord pour aar ko parce que xamul lan lay def ensuite pour mu assurer wu ne moom day ñëw te fi mu toll comme samedi ak dimanche du bésu liggéey moom. mais ni mu opté pour. vendredi la yem noonu su procureur bi toogee ba vendredi te gisu ko. Hmm. ni mu defoon Ousmane Ngom dem jëli ko. du Ousmane Ngom de. Ousmane Ngom man maa Ousmane Ngom Sonko du Ousmane Ngom laa dama ne la. ah koy jëli kon pare ngeen koy man bul wax man man loi laay wax. xam nga je ah. parle loi. Ah, parce que bul wax man waxuma en tant que en tant que ay kuy politique. vraiment su ma sañoon Sonko du dugg ci mbir yi. donc mais. su dee su dee li nga xam ne légal la yoon laay wax pour nit ñi xam. lan mooy Poutine waxoon jëli Vladimir Poutine. yaa mel na waajoo fi mu ne nii. ayca ñu ñu ñu ñëw ci ci ci Barthélemy Diaz sorti démbem bi noo ko jàngatee. Barthélemy Diaz. Barthélemy li ma si dégg mooy. Hmm. kii euh, Sonko moom ñaari xale yi Ndakaaru ñoo ko galgal te ñoo ko kenn ki daan na ko te soo mooy keneen ki na ko daan mooy Mame Mbaye Niang ak ki nga xam ne moom mooy Barthélemy Diaz donc xale yi Ndakaar yi ñoom ñii toujours dañuy am ay fem yu ndaw yoo xam ne. may feem ku leen moytuwul. alors yow. yow yow loo ci génn. est-ce que xarul xarul démb ci politique. benn li may feem benn. Barthélemy dafa xarul démb. waaw may a rek may ma rek. xam nga xam nga ñoom dañoo bokkoon. Farba xam nga dañoo bokkoon dañoo bokkoon yeewi askan wi. biñ bokkee yeewu askan wi Ousmane Sonko taxaw Sénégal gépp di ko dégg mu ne combat bi de li ci jiitu mooy fexe ba Karim Wade ak Khalifa Sall ñoom ñu am am amnistie ne moo jiitu ci combat bi yow ñu tëj ko sa waa mu nekk ci naqar ah gis bunt buy xor-xori mu bëgg fa jaar nga daal ni ko def war nga askan wi daal di jël loxoom fatt ko ci bunt bi loolu loolu metti na xam naa ne Jean Paul Diaz parce que metti na aussi xalifa parce que xalifa yaakaaroon ne bunt bi su ubbee ko au moins waa ngi ko ciy jàppale. déedéet donc y a une trahison ngi waxtaan. kon bunt boobu nekkul ni li Sonko wax la. mais buntu boobu. non non non Barthélemy nee na non Barthélemy nee na ñu ngi waxtaan. mais Barthélemy président moom moo def appel. Barthélemy nee moo def appel. nee na nee moo ci waxtaan ak Sonko. Euh, nee na moo ci waxtaan ak Khalifa Sall rek nee na bi muy dugg ci Macky sàll mi ngi waxtaan ak ñoom comme ñoom xam nañ li muy li muy def Omar ñu tëjee foofu bàyyi la nga tëj ak euh, ban message euh, non message bi nga xam ne hmm. moom laay wax man hmm. ñun ñii nous sommes des républicains et nous sommes des libéraux républicain mooy hmm. réew mi dafa war a taxaw képp koo xam ne dañ laa war a yóbbu yoon nañ la yóbbu yoon soo demee suñ la tuumaalee na nga dem yow ki sa bopp alors ci yoon nga setal nga setal sa bopp beneen bi fi may tëru ne mooy. Mm-hmm. xam nga bokk mm-hmm. bokk nit liggéey. Mm-hmm. bokk nit liggéey. muy ay journalistes yu bokk fu ñuy liggéeyee bokk profession. wala muy ñoo xam ne dañuy liggéey ci benn usine. taxul ne ki nga bokk liggéey. heure boo xamee ne wàcc na yoon. da war a dem. nga di ko xeexal da nga war a yem eh, em foo war a yem. ndaxte day te da ngeen di gaaw jërëjëf. parce que temps bee parce que yow. temps bee jeex temps bi jeex na non tu es très temps bi jeex na am na foo xam ne nanga woo ko euh, fa macha allah ah, jërëjëf kon beneen yoon. sukuraat waaw kay jërëjëf merci. Euh, mi ngi noonu jërëjëf merci président Farba Senghor ah. ñu koy gërëm bu baax a baax di ko sant di ko ñaanal tamit di ko gërëm ci teewaay bi. di la ñaanal jàmm ah. di am mbégte nag eh, ci teewaay bu baax a baax waxtaan wi neex na kon eh, ajaratu kàddu gaango jërëjëf waaw Omar Boun Khattab Gueye jërëjëf Farba Senghor également ñu eh, je rappelle que ne moom mooy président du parti des les libéraux républicains mbooloo askan wi nekk sous coalition ci biir Benno Bokk Yaakaar ñu amoon mbégteeg bànneex doon la dalal